ah 88 628 98 98 jotaay wax sa xalaat kon ñu daal di ci rek tàbbi ak ponk fi ñuy jukki li aju ba tey ci coowal local yi nag pënd ma wëreegul ak ñi sàkk ba tey 2021 ba moom bañ faa génn ndax ñaari élection ñu mën ko wattandiku ci 2022 bi nag la ko askan wi jàngate bokk na ci marché bi itam yokku njëkk yi saa yu événement di am nemmeekuwaat nañ ko ci marché bi itam bi ci des mooy Covid 19 bi tendance bi di wàcc bàyyeeku bi itam ak ba fan. 88 628 98 98 allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam Adama Ndione. waaw nga lay siyaare. ñu ngi lay delloo siyaar bu baax. baa ngi am jàmm bu baax ñu ngi sant yàlla waaw. di siyaare bu baax sama ñetti station di leen ñaanal gudd fan ak wér ak xéewal ak ndam. waaw. Adama di leen ñaanal ñu dugg ci koor gi jàmm génn ci jàmm. Mhm. kenn bañ cee wopp kenn bañ cee tëdd. Mhm. loolu jàllee Covid bi ñu ngi ñaan yàlla sans delloo ko gannaaw bu baax a baax lu mu gën a dellu gannaaw moo gën. Mhm. nañ dugg ci koor gi sa ñaan ko bu baax yàlla mën na ko su loolu jàllee local yi moom tool yi bari na daañu ko dàq duñ ko dàq li gën a wér daal. Mhm. buñ jàppee date bi mu bett kenn dañu ñëw liggéey ci seen i mhm. kenn ku nekk fa nga fa nga ne parce que président bi ñu ko falee dafa wëraat fal ay nit ñoro añ doom bay tànk mhm. nga ni si démb dong baal yi mi ngi dajale mbooloo mu bari di di di di wane li nga xam ne président def na ko ci dëkk bi ànd ak sëriñ Mame Mbaye Niang di chef religieux bu mag bu nekk Kër Niang ñu àndandoo dem ci sànc yëpp di ko woon nit ñi nit ñi teg ci seen bët xam nga loolu buñ ko dee def ba nit ñi xam ne lii président def duñ mer buñ watee daañu am dara ndax président li mu def bari na waaye ñu ko wane lu amul waaye ñu mel ne sëñ Mame Mbaye Niang dañ ko wane fu ñu toll guddeeg bëccëg di chef religieux bu mag bu nekk kër ñang ñëpp xam ko ci politique muy taxawal président lépp lu président bëgg ñu ne ci guddeeg bëccëg subaa ngoon monsieur le ministre Makhtar Faye noonu la def meeting bu rëy def nañ ko Fatick dajaloo njaboot yëpp nekk fa wane li nga xam ne président koy liggéey ak lam fa bëgg a def Makhtar ba monsieur def te moom dem ci seen baas te nekk di soow te amal nit ñu njëriñ bu dee ñetti dërëm da nga koy mën a fekk jàppale ko ca bu ko defee boo ko woo mënta mu wuy si la bu ko defee li mu bëgg bëgg ñu defar ko nit ñi nit ñi safoo leen faale leen xeebul kenn comme romb waxtaan ak yow comme gis nga efficace sax mooy la góorgóorlu métti na yow la meloon fii la tàmbalee woon loolu mooy ndam mooy ngor mooy jom te bu na buñ ki la tànn wàcc na yaa ci des merci beaucoup. Ah, ñu xaar keneen ci ligne bi bitim réew itam 33 841 22 33 ci wax sa xalaat bi ñu jël keneen allo. allo salaamaaleykum. allo Adama naa def. waaw maa ngi fi. allo Adama naa def. waa maa ngi fi maa ngi fi. maa ngi leen nuyu di nuyu Socé di nuyu Papa waa ñu ngi lay fay waaw. Adama xam nga tey la 12 avril 2021. Hmm. gis nga affaire élection locale. Hmm. nañ ci sérieux. Hmm. état bi na ci jël ay matuwaay yu sérieux quoi. xam nga dafa xaw a metti wax dëgg yàlla nga dëkk ci gox. ñu jëli benn jàmbur fële indi ko ci gox ba fal ko mu nekk fa maire te du xam lan la waa gox ba doon dund te man damay ñaan nañu jéem a changer système bi ñuy fale nit ñi nañu bàyyi gox bu nekk ku fa bëgg a nekk candidat nga nekk candidat ñu dem élection nga campagne wane say programme yu baax ñu dem ci urne yi ñu voté ku ñu fal ñu xam ne kii waa gox ba ñoo la fal kooku bu fa jógee dina mën a dimbali waa gox ba dana mën a am ay partenaires yoo xamante ne ñu dëkk ca gox ba nekk bitim réew danañ leen mën a indi ay partenaires yoo xam dinañ mën a financer Sénégal gën a avancé parce que maire bii fi nekk fii New York muy euh, Bill de mille 2013 lañ ko fal mu liggéey après 2014 15 16 17 ñu falaat ko léegi mi ngi war a jeexal mandaam ci fin de année bii mais di jël ay conseil municipal jox leen ay 1 million ak ci 500 000 guddi ñu leen suba dem leen votel diw pour ñu teg ko fi loolu dafa ñaaw parce que maire de ville de Pikine maire de ville Guédiawaye ak bu Rufisque yëpp ku ne xam nañ ñooñu ay famille Macky Sall lañu te ñooñu dañoo corrompre ay nit ñu fal leen tey jii ña dëkk ci gox yi ñu ngi souffrir souffrir lu metti te loolu moo war a jeex Sénégal nañu leen honnête te ñu bàyyi tagg bi gërëmante bi seet li nga xamante ne mooy doxal Sénégal ñu def ko nekk ay patriote bu ñu diggee ci rajo ku mel ni man ak keneen ak keneen ñu wax loo xamante ne day jëriñ Sénégal nañu xool ñu baax ñu ñu gore ñu nangoo liggéey Sénégal ñu mën a indi ay partenaires dimbali askan yi ñu fal leen te bàyyi di jënd ak nit ñuy fal nit loolu baaxul ci réew loolu corruption la di leen nuyu di leen sant naan leen maar américain forever yaa ngeen def wan lool. ñu xaar keneen ci ligne bi ah, jotaay wax sa xalaat la ñu daal di jukki wàllu marché bi Covid bi ak lu aji ci wàllu local yeeg élection yooyu ah, ci deux mille vingt et un vingt deux allo salaamaaleykum allo allo allo salaamaaleykum allo waaw. na ngeen def ñu ngi fi sëñ waaw ñu ngi lay dégg bu baax da ngay fay rajo bi. waaw maa ngi jóge foofu. Hmm. Ah, problème bi mooy lenn moom booy xool sax li ñuy doxalee. Hmm. muy nguur gi ci boppam mais nguur du topp opposant opposant hmm. parce que heure bu ñuy jógee fii di meeting yooyu yëpp yàqu xaalis la boo xam ne ça ne sert nit ñi bu ñu xisee ba weddi la weddi nañu la. loo doon joxe ay milliards fi mu ne weddi nañ ko ba pare lii passé wane na ko. mënoo nekk def neuf ans quelque bëgg naan ñetti at yi ma fi desee yooyu weesu nañu foofu mais boo ñu xam loolu nañu bàyyi yenn yi nañu teg mbir mi ci yoon parce nit ñi dootu ah waaye dafa mel ni dagg na euh, keneen wala bu dellusee ñu daal di koy jël ci wéy wax sa xalaat bi 88 628 80 allo salaamaaleykum Oustaz Adama waaleykum salaam waa Diop na nga def ñu ngi lay nuyu waa di la nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp Oustaz Adama mm-hmm. gis nga opposition bi ñoo war a jóg pour pour régler pour régler affaire bi parce que élection locale dañ ko war a organiser. faut pas que ñuy bàyyi Macky Sall muy jalgati constitution bi di def lu ko neex di jaay doole loolu daf ko daf ko war a arrêté opposition bi nañu bàyyi opposition ay salon opposition ay ay ay conférence de presse nañu wàcc ci mbedd mi jàkkaarloog moom parce que li nga xam ne yoon moo la ko may da nga koy arraché amul négocier nañu bàyyi yalom layam layam bi te jàmmaarloog moom parce que ñàkk ñàkk respecté Sénégal yi moo tax muy def lu ko neex élection locale yi mën nañ ko invité mën nañ ko organiser ci 2021 bi pour pour càmbar fichier bi deux mois mën nañ ko ci càmbar te fichier bi lu ci nekk moo ko ci def fichier bi ko fal bu ko bàyyi woon noonu mënoon nañ cee organiser ay mais moo ko jalgati màbb ko yàq ko pour pour pour pour pour pour njuut njaaj moo pour am deuxième mandat loolu la def bu am deuxième mandat naan fichier bi euh, opposition opposition de gis naa le le le syndicaliste Sidya Ndiaye di ko wax. amuñu droit di di di di prolonger mandat maire yi moom 2012 ba mu faloo dana ma dinaa wàññi sama mandat di sept ans def ko cinq ans. ba mu demee ba ci biir daf ne conseil constitutionnel moo ko ne mënoo wàññi mandat mën a yokk mandat mën a yokk mandat pourquoi ñu ñu fal sénégalais yi fal euh, maire yi ba seen mandat jeex mu ñëw di ko prolonger di jalgati constitution bi mais loolu il faut qu'il arrête opposition bi nañu jéem na jàmmaarloo ak la xam. comme ni que leen ko Ousmane Sonko waxee woon rek mooy moo mooy moo am rapport de force rek mu teg mbir mi ci yoon loolu laaj loolu daal laaj ci lu ma doon wax ngeen baal Euh, Pape Laye ñu jël keneen ci ligne bi ba tey ñu euh, wéy jotaay wax sa xalaat 88 628 98 98 ñu jukki woon ci lu aju ci wàllu euh, marché bi ak waxtu yi des ñu daal di tàbbi nag ci koor gi wàllu Covid bi ci la bokk itam ba ci wàllu local yeeg yu mujj ci xibaar yi ci daal di nag rot lañ ci daal di nag sàkku diggante 2021 bi ak 2022 bi askan yu war cee joxe nag seen i xalaat Pape Laye ñu jël keneen allo. allo allo waaw. Ah. salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi. Adama maa ngi ziar waay. ñu ngi lay delloo ziar bu baax. kii Paa la bu Ousmane Sonko Zac Mbao. Paa Ndiaye ñu ngi lay nuyuwaat. Ah. ñoo ngi leen di ñaanal weeru koor jàmm yu dugg ci jàmm génn ci jàmm. waaw. yàlla nangul ñu bépp jàmm yàlla buñ ci mën a def. Mm. gis nga li auditeur bi mujjee dugg wax léegi moom laay wax man ñoom dañuy seen seen bopp même cent milliards buñ ko fi eh, eh, investiroon it nit ñi war nañ leen gannaaw ba pare ñoom euh, askan wi dañ leen a raw ci xel ak xalaat ils sont très retard par rapport à la population bu ñu xamoon gis-gis bi askan wi am ci politicien kon danañu seet yeneen doxin ndax jëpp dañ leen a jëppi élection yi ñoom moomuñu ko même li waajooju wax façon bi ñu war a fale les responsables ci gox yi dañ ko war a seetaat gox baa war a tànn ki ñu bëgg a fal mais du ñëw rek imposer leen benn nit teg seen kaw booy gis ñaan naan Aliou président de maire du Sénégal lu doon mag yi Sall jóge fële fële ñëw nekk président des maires damay yërëm maire yi nga xam ne ñoo ko fal mais yëpp ci même groupe bi la. élection yi li waa ji wax rek il faut ñëpp taxaw organiser lu ko par force mu organiser ko moom réew mi dañ ko fekk dañ ko un mandat bien déterminé pour mu doxal réew mi teg ko ci yoon mais ba mu toogee ci réew mi ba léegi lu ko neex lay def yëgul askan wi. buy dem di osé di jënd ay oto un milliard nga xam ne kii fàllewul askan wi nit ñi nag ñoo jóg léegi askan wi ay jalgati élection ak njuuj njaaj yooyu jeex na fi nit ñi dootuñu ko nangu seen bakkan lañ ciy teg léppay tegut yoon ay juróom benn nit rek bëgg a taxaw di jalgati li askan wi yëpp bëgg c'est terminé ci réew mi asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw euh, loolu mooy gis-gisam Pape Laye ñu xaar keneen euh, ñu jël ko ci ligne bi jotaayu wax sa xalaat 88 628 98 98 allo allo. asalaamaaleykum waaleykum salaam waaw. waaw ah, dama gan maa ngi lay nuyu lu bari man la Mamadou Medor. waaw ñu ngi lay fay. di nuyu ñi ak euh, waa groupe wax sa xalaat. Mm. Alliance pour la République waaw man daal li xam ne ma ko ci wax Adama. nañu xam ne élection locale yi loolu dina am ku ne xam na ne élection locale yi moom dina am mais xam nga feebaru mbas bi nga xamante ni bi dafa lëmbee àdduna bi yépp mu gàllankoor lu bëri wax dëgg yàlla am ba nit wax dëgg yàlla am euh, di dàndante di soriwante loolu dafa nekk lu nga xamante ni ba léegi feebar mi ngi ci mi ngi ci àdduna bi teg ci tamit alors euh, Macky Sall ku ne xam na ni dafa taxawal euh, wax dëgg yàlla am woo national dialogue bi wax dëgg yàlla parti politique yi wax dëgg yàlla kilifa diine aada yi wax dëgg yàlla ñëpp a ci biir. muy muy ñi nga xamante ne bi société civile ñëpp ci biir. ba tax na euh, élection locale yi loolu euh, dina am mais nag euh, ku ne xam na ne dialogue bi fokk mu jàll ba pare loolu mooy dëgg. ñu ñu waxantee li nga xam ne moo fi am rek am na ñu nga xam dañ naan mer gàmm taxaw di wax rek xam li naan dem ca bàkk dem ca làmb ja di bàkku jóge fa di bàkku moo gën waaye ba daal ku ne xam na président Macky Sall pro benn problème sénégalais du du ci am ndax fi mu toll ci liggéey la nekk liggéey la tal te mu ngi ci ba fi muy wax ak yow ni mu ngi Bruxelles Bruxelles euh, loolu yépp ci ci liggéey bi rek loo xamante ni luy yokk Sénégal lépp luy njëriñ Sénégal ci loolu lay dox ci loolu lay wax ba tax na daal dama ne Sénégal yi nañu ànd ak daal rek te xam ñi nga xamante ne ñooy opposition yi bu ñu pousse kenn askan wi di wax ci affaire élection élection élection moom dina am li waral wax yeeg coow yi ñi nga xamante ne bii amuñu ñaari nit ñuy wax ne ay opposant xaw ma lan mais politique moo leen tax ñoom ñuy wax président ci liggéey la nekk élection locale yi loolu daañu ko organiser sax maire maire yi 508 maire yi. ñoom président Macky Sall la ñu àndal nañu ànd ak te xam ne élection yi moom bu waree am heure bu waree am rek dina am te élection moom dina am waaye nag li wér te daal nañu ànd ak dal ndax président Macky Sall daal fi mu toll nii mi ngi ci liggéey la nekk. te ci problème askan la nekk loolu wax dëgg yàlla na ko Sénégal yi ci jàppale te xam ne loolu mooy jër jërëjëf. mu nga ko yem ak mu jeexee xibaar yi itam li ñu cërale woon eh, daal di yëkk ci cappaandaw gi eh, fi la ñuy ànd ajandi jotaay wax sa xalaat bi ba xibaaru guddi gi ñu daal di koy nag eh, yeggali 18h Adja sa Ilimaan wan ci xibaar yi ci kàllaamay tubaab ci yaatal jaajëfal bu baax. kii di Pape Laye Dieye mi ñu nekkaloon ci sottandikukaay bi Sud Nutrition lañ ciy daal di nag toftal mucc biti ak jaamu biir gudd fan ak wér wér la am ak mën ak wekkeek tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë Sud FM, toujours copié, jamais égalé.